commune Mbacké dañ fay def lu kenn mësul def ci biir commune Mbacké liñ fi def lu kenn mësul def ci biir commune Mbacké mooy dañu ñëw ci district sanitaire bi dañ ñëw ci district sanitaire bi ñu fekk fa ay jigéen ak ay góor ay père de famille yoo xamante nii ci condition difficile lañ doon liggéeyee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 bu boobaa bu demee foofu ñooñu mën ñooñu mën cee ànd loolu mën a dem c'est important parce que ça ne sert à rien ñu jël pouvoir exécutif ci suñuy réew yi confier ko kenn jël beneen pouvoir confier ko keneen parce que loolu déséquilibre lay indi instabilité lay indi te day dugal réew mi ci guute koo xamante ni a bi xam fan la ñu jëme kon na ñëpp yeewu ci lool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 parce que njiitu réew mi dafa dugal loi yu baax parce que bu boobaa dañ koy bloqué kon ñun Sénégalais yi ñoo war a yeewu xam ni suñu démocratie am na benn maturité bi xam ne aussi réew mi ki ñu jox mu di mu di ko doxal réforme yi mu bëgg il faut ñu accepter ko ko pour ñu mën ko ko accepter kon il faut ñu ñëpp ñu mobiliser wu voter massivement la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar muy bulletin bu ma doon am.